ngi noonu borom bawal. Cheikh maa damay wuyu interview. Cheikh man la. tanda. man Cheikh. Cheikh Thiaw sama doomu nday. ah kooku sa xarit la. mooy ci gaw di moom seetaan. kooku sa xarit la sama xarit la. an Abdou Tall bu xarañ loo. ah ak Abdou Tall bu xarañ loo léegi Abdou Tall bu mbay guy gi la xarañ loo gunge na ko ba mu jël ruwaat. day tourné gunge ma ba ma jël ruwaat ma ne. mooy yoon ak Abdou Sène sama doomu nday sama. Abdou Sène waaw waaw waaw. waaw yaa ma gën a xam. la yaa ci jàmm. maa ngi sant yàlla baax na. yaa mel yaa ngi ci kan bi de comme ñëpp waaw mais ñu ngi ci ñun ay sénégalais lañ tamit. yaa ma gën a xam. faire d'être sénégalais di leen ñaanal yàlla rek ñoo di coupe bi quoi. mais mbay temps yi mbay sax noonu nga ma samel xoromo geeg salañ ah, salañ gi ah mbay loolu lu koy def ci yow. xam nga léeg lamb day am léeg benn erreur bu ndaw am rek ñu bëgg laa dëkkal foo xam ne da ko fa man champion laa Lamine lamb ji benn mbër gënu ma fee doon champion damaa gëm sama bop bopp lijjantiwu ma mbër xam nga lu ma def gëm sama bop topp ci ginnaaw sunu gannaaw tabaatin di liggéey gëm sunu bopp yaa ku foog ne mbay am naxa naxa la yaay nax sa bopp ci kanam ngeen di comprendre. am na ñu jàpp ne naxa la. ci la ñi sax lu tax ñu lay jàppee naxa soxor. ay siisumaan ay siisumaan xam nga siisumaan a bëri ci laam ci mais ñun ñu ngi sant de. mbay ren est-ce que xam nga ni saison bi bokk nga ci mbëri bi gën a def exploit. ah mais dañuy xaar ba ñuy joxe meilleur combat ñu xool ba xam ban la ñuy joxe loolu laay rek nga jël marle ñëpp ni moo la man mbay nekk ci ruqam rek. di liggéey Serigne Salim keneen ku raw marle moo ko jëlee sax nii laa koy def wallaahi asim. Ah, am na ku saf sàpp ku dëkk géej waaye koo xamante maa ngi dégg temps ñu lay tuddi ko tudd de. kan la a ah Jackson champion la mbër la mu ngi ci ji maa ngi ci làmb ji ñun ñëpp bëre. waaw bu loolu boole ñu bëre rek. boole na leen. waaw kon demal wooy promoteur mu ñëw. loolu et puis loolu derby la. Ah. parce que da nga ba léegi ñu ngi koy waxtaanee. Géejawaay dama fa am ay supporters ay fans sama papa Dieye fële nag te bawal bawal la. yor fa ay kër ay kër laa wax de waxuma la benn ay kër. ba man maam fa terrain. biir Géejawaay biir Géejawaay war koo defar yëkkati ko dëkk fa. waaye écrit bawal nga nekk nag école de libération nga nekk. aw ma droit am kër Géejawaay dëkk fa. am nga droit dëkk fu la neex. Dakaaru kenn moomu ko. bàyyi kenn moomu ko loolu laa bind nii sama ginnaaw. day jaay rek ëttu Adja Aram jëli. merci noonu la demee nag man Lamine yaa ma gën a xam daal pare naa maa ngi déglu sama papa Badajon ak sama papa euh, Dieye. bu ñu la waxatee Ndakaaru daal leen Ndakaaru lébu yi fi dëkk. Ndakaaru lébu yi fi lañ dëkk. mais dama ne la. waaw lébu ko moom bu ñuy wax moom mais dama ne benn lébu génnut ne maa ko moom ay saraxuleeg ñeneen ak ñeneen a génn naan maa ko moom. Ah. te moomuñu ko fii lu ko xew la yaa ko moom. mais neex na la yaa Jackson. man benn combat naqariwuma. son day xeex de. dama ne. man gars yi xamagul ma Lamine ci kanam lañ may xam nañ ma jox combat buñ ne mbay lañ ma naat loolu laa soxla. noo gisee face à face bi mu Balla Gaye ak ak Tapha ah, lamb ji neex na mais dama yow sama grand Tapha Tine rek Balla Gaye bu ko topp ci nii mu mel nii la ma sa mel signature la tooñ la yëngal la pour nga mer ak gis nañ démb Tapha waxee noo xam ne mooy lool mais bu mu ko topp Balla Gaye màggat na ba pare. bu ko Tapha jàppee da koy duma daan ko. Balla ngay wax de Balla. Balla Gaye bu ko Tapha jàppee da koy duma daan ko. li ngeen doon wax de 2013. bii nag bokkee nag booba booba maa ci kaw stade bi door a booy di seetaan bii nag damay wàcc ci suuf rayante bu jotee pare naa pour rayante ñoom luñ bëgg ci combat pare nañ pour def ko ñun. xam nga la ko tabaatu tabaati nee na moom combat la ci moom quoi entré. combat kan. entré entré. entré la ci tabaat kay tabaat day. moom Balla nee na loolu lii la ci. nee na bii ci moom. entré la kan Balla Gaye. waxuma entré na bu dee bu doon lu ñuy lekk la maana bii da koy tàngatoo rek. dama ne bee jal booba tabaaxale la la gën a xam ne bu tëddee du nelaw tabaa la jël de kidduma ñi ko daan daan leen moom la jël. Eumeu Sène mi ko wër ndombo dóor ko ba mu bëgg a dee tabaa ko jël duma ko fii barki dem boo njaay. Bombardier mi ko dóor ci ker nopp mu tawaw fee tabaa ko jàpp damm loxo bi. jàmm amu dee pour may négocier combat bi nii wala ay sama papa Aziz xam na ne amul négociation. Tapha Tine. aw ma ci moom sago amut ku ma ci négocier sama papa Aziz xam na lool sax point. mais Balla Balla mi ma gis nii titre la. barke sëñ Touba Mbacke Balla Balla Balla wuy ma day négocier nii di wut ci xaalis ci làmb rek mais pare na ci làmb xaalis lay wut nii rek. Balla Gaye xaalis moo ko dugal ci sa xaalis a ko ci dugal waaye du du bëree du doole du dara. yaa ngi wax de. wallaahi Azim Tapha da koy duma daan ko incha rabbi bu ko toppati ci signature yeeg yooyu di di def yii muy def nii bëgg laa jaxaseeg àdduna non arbitre day soufflé dafa dox ci kawam duma ko daan ko. yaa ngi Medina waaye yaa ngi Bawal aussi. dëkk Medina. Gris Bordeaux barki de mu ma jël ko mu lancé message bu am solo lancé leen ko yéen ñëpp parce que dañu gis temps yi xëccoo bi dafa bari te moom jàpp na ni loolu warut ci seen biir ay nit lañ ay nit ngeen yu dëkk te du ngeen bëri seen biir nee na nag lépp da ngeen ko war a rafetal ndax loolu message boobu Gris Bordeaux lancé d'accord nga. Gris Bordeaux Gris Bordeaux sunu grand la ñoom ñooy sunuy grand mook Tapha Tine Medina ci mbër mu mag ñun ñooy seeni rak topp ci ñoom lii wax ji mooy nañu booloo doon benn bàyyi booy yi di taf ay photoy mbër di leen saaga doon say booy yow mbër mi génnoo def ci benn réaction loolu d'accorduma ci man sama booy bu taf mbër wax ko loxo sunu noonu dama lay won ne la man saagaaw ma nit waxuma ak nit lu ñaaw làmb lañ seq nañ wax mu rafet mu jeexee jeex na te ñun Ndakaaru bëreew ñu suñ li ñuy def bëreeg waa banlieue bi bu jeexee jeex na nañu booloo doon benn ñun ñëpp ñu ne ci jàmm ku ci sa morom jox ko cër parce que ku ne li ngay may yaa koy may sa kenn mënu la koo xañ moom leen dina ko dox dina ci dox ay jéego ndax yéen da ngeen ko ko yombala man de bu diggee ci man man aw man sax aw maa kenn problème man aw kenn problème parfois nga nga kii kër nga ne Dakar bàyyi kër moom da gis ku bàyyam moom Dakaru ah xanaa Adja Aram Dieng Adja Aram Dieng lébu la kooku bu ko waxee ma nangu ko te kooku sunu lépp la waaw kooku bu ko xamee na ko mais ñeneen ñi koy wax ay saraxuleeg ñeneen ak naan ñoo moom Ndakaaru Ndakaaru kenn moomu ko ku xewle yaa ko moom tey bee mi nga xewle moo moom Ndakaaru. tey bee mooy borom Ndakaaru. tey bee may borom Ndakaaru. kontaan ci yow ma village a ngi noonu. jaajëf mais ana sa copain Fallou Fall Touba. Fallou Fall Touba sama doomu ndey sama xarit kenn du moom nag. daa kenn du mu nekk. kenn koy ñaanal bébé bi yàlla guddal fanam. village doomu ndey kii Aliou Seye Senior. Aliou Seye Senior moo la nga. arrière fii ba gudd stade. Eh, daa doon ma waaye. arrière nga. arrière bi de. Ah. at non moom. Tapha Tine Balla taxaw na ne coow li bari. combat la boo xam ne combat bool bool yi la combat entraîneur bool bool yi la mu ne combat boo xam ne combat rawaas la mu jaral lu ne dam nga ruwaa bi toog du ko xaar da nga ñàkk fayda sax donc moom bëri na ba pare ne moom ne moom day toog xaar nu ngu nu jël du nun tamit du nu toog jël na leen. bala jël nu mais Tapha Mbeur mi bokkut boolu bool yëpp ngi ci ginnaawam nga xam ne am na combat bu baax da def entraîné ji di yokk entraînement yi bu baax. Alaaji Bara Jon ah, ay wax. ndànk rek. mbay guy gee ngi wax rek. ah non da cee nag. mbay mi yaramam tàng na de. mais mber mu ndaw la mber mu ndaw. da nga def mber mu ndaw. tey man benn mbër laa ben ah, ah, benn a ah du ma la tere pour nga gëm sa bopp parce que boo ci tolloo rek da nga koy def boo demee ba toll ci nekk mbër bu mag nga def yëfi gara. mais Jackson nee na pare na pour bëre Jackson gars di ko daw moom mu ne nañ ko ko jox pare na. mais man mbër bu ñemee du ma ragal mbër mi mbër mi mooy encaissé courpe ñeeg bi man benn mbooy laa du ragal lool même mbër dama koy nat sax ci mu laaj mbër ma xam ne kii ñeme na ndax est-ce kii damay xam ne kii am na foo xamante ne lii mën na faa àggi parce que lam nekkul lu yomb nekkul ni da moytu ñu lay lijjanti ba nga dem bu ñu la wutalee yoon ba nga affiché da ngaa a xuus ci gars yi nag bëre ji nat sa xaaral ma xaaral bi jeex ma ñëw ñu eggale fi ñu nekk am na solo baa ngi noonu ci géew bi dox ci góor gi étudiant ak Kaaw Cissé bu Dalifort gëj a bëre moom la ak góor gi baa ngi wax ak ñoom. xaw ma village la wilis waaye mu ngi wax ak ñoom diggante